dia la woon tabaarakallaahu waaye nag boo gisee tudd ma Adja Fatou Faye ndax Adja Fatou moom kon soxna Fatou yàlla bu njaboot gi umpale loolu te yal na yàlla defal teraanga bi yaatu jërë ngeen

கிளம்பியா கிளம்பலா شمنا خدمه في كل ماخذ على يمن كل نبي في شهور بالخد على شمنا خدمه ظلم على من ظلم من أنبياء الكرام والمنام شيخ مسافر بن خصم عرضا خلقنا يقي على يمن يدي فوقنا المغرب حتى اعتدى رقى إلى مكان يرفضها الدنيا باللبان ولي بالله شغل رصد في البقاء من بعد البناء ولا نلحد الذي هو المنى مقدم مدور خير الورى

هي الجزاء والجزاء بأسر ñëw naa li mu leen di wax muy kii kii kii ma ne maam moom di dem jël Ahmad Ba bu Moussa ba ñëw si di dem ñu dem sax lu bari ci léegi ñu waxtaan ñu ne Cheikh Fass Dieye waxal kii bu ñu doon waxtaan léegi démb gi Cheikh Massimo ñu ne lan mu ne Cheikh Sadou Sebi yeeg Cheikh Sadou Génnaay la Cheikh Cheikh Koulou Gueye Génnaay la Cheikh Sadou Sebi yeeg dafa jël xayma bi jox ko Cheikh Massimo vraiment demal tuuti rek nga demal loolu lañ doon waxtaan ñu ngi ñëw bi ñu demee fii ba jàmm ci ngelaw waru ko def fukki fan ak juróom weer daanaka ñu toog weer ak seen wàllu génn génn Cheikh Sadio Kébé daa ngi wax di sëriñ si ñun ne ko bëggal ma xal wala ko wala fan la ko jël ci gën a def ba bëgg xal wala ko mën a ñëw ñu xaar juróom benn fan jàmm ci ne la bëgg nañ daal indi béy indi xar indi gënëm indi xaalis indi or indi jëriñ jëriñ am kon di leen waxoon ne rek di Cheikh Sidy Diop duggil na Cheikh Nassir Sall duggil na Cheikh Nassir Sall amaana ñoom ñoo na ko bañ a tege ndax amaana yooyu bëri na lool waaye ñoo tax ñu gën di bay bay ne benn amaana la sax dara ko ba ci àll ba am na dara donc ban amaana la sax dara ko dara suñu mu dugg ne amaana Yalla yalla ko sa yalla rek kan la xam na dana ci ñu la jottu waxtaan ngeen baax rek ñu ñu ñu ñu ñu ma xaj bi ci ndigal la ma wax dafa toog toog balaa moo dugg tuuti rek ndax dama bëgg a mos ndax dafa am ku ñu xaar ci kër ga Cheikh Mouhamed Diouf dafa ñëw Ndakaaru Njaay magu Ndakaaru yi di ko xool di ko xool gis pët yi rëy lool macha allah xonq cër mel ni kaay di ko xool ñu yéem leen xool xale yu bëtt Cheikh Mouhamed ci gën a yéem Mabou Ndakaar yi am ko am audace nekk Cheikh Mouhamed ci gën a tax sa bët yi xonq mu ne ko Cheikh la Cheikh Saad laa tàbbee Cheikh la Cheikh Saad moo ma woon yàlla ma gis yàlla ak sama bët te yàlla dafa ragloo moo tax bët yi xonq yàlla dafa raglu moo tax bët yi xonq daan na toog ba yàgg mais ñu koy bëgg fekk boobu dafa jëkkoon ay jamono mu feebar lool feebar lool maam Xadi Jóob jaaxle bu yàgg mu yuuxoo ko Xadi da ngaa def ne damay dem barzaq te dama guma barzaq de ndax bu may dem barzaq malaak yi dañ may rëkkal ay tabale te dégg guma tabale mu ne dégg-dégg boobu sax sax wax nga loolu war naa mën a nekk ndax moom moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani rek dañu dégg ñu joxoñ ko ne ko wëlliw nga wante Cheikh Mouhamed Simbala Cheikh ba Cheikh Samb nee na ko wëlliw lan mooy wëlliw laysa wëlliw li fii laysa laysa wëlliw li fii ci umam yi du koo xam la ñaanalee sa aajo faju déedéet wante wër lay seeni si ñu ne kan mooy fa diyu mu ne wëli wëli si mu ne wëli wëli ku ne xam ne dafa seey ci yàq lépp yàq bil charge muctasimul bil ilmi muntasimul bil sabri muntasimul bi def def taxawal mu ne loolu mooy wëli mu ne wëli du koo xam ne boo ñëwee këram mu berndeel la waliw da koo xam ne siiw na ci turam waliw da koo xam ne ay magasin alal la yore mu ne waliw du kenn koo xam ku dul dafa seey ci yàlla léppam yàlla Cheikh Mouhamed Ibra léppam yàlla la ndax foofu la taxawoon fan la taxawoon xul inna salaati wa nusuki wa mahya wa maati lillahi rabbil alamin la sharika lahu léppam yàlla la moom Cheikh Mouhamed Ibra kon bu la yàlla jàppalee ba tey ngay liggéeyal Cheikh Mouhamed Timbira ndax wax naa la ko nee naa la mbir mi nekkul ci am-am mbir mi mu ngi nekk ci yéene am na ku la ëppale ci kër Cheikh Mouhamed Timbira wante deful yow la yàlla jox lu tuuti barkeel ko ngay liggéeyal Cheikh Mouhamed Timbira wante doo koo toll ci sa baay bii doo ko rëccu li tax doo ko Cheikh Mouhamad Jimbira yaltasu fi lidi yaltasu fi lidi moo jaraa léppam yàlla la moom Cheikh Mouhamad Jimbira kon ala kulli xaal du ñu def lu dul Cheikh ñu xaar ci kër ga léegi mu may woo ah, def lu la gërëm jotaay ji alhamdulilah rabbil alamina eh, na sant yàlla di ñaan jotaay bi sax te incha allah dina sax ndax loo toog na saa waay wax na ko léegi mbir mi nekkul ne yow yaa baax dañuy dox kan moo la yar ki la yar moo baax mu ne ëllëg ëllëg ñu ngi lay nattee ci say doom bu boobaa yàlla na fekk yàlla ñëwee na lépp jeex ba xam ne bàlle ma xam macha allah mbokk mi aas yoo gay nee na mi ngi leen di nuyu ñu jiital Cheikh ma jimbira mu Cheikh Sidi Biir mu Cheikh Jimbira nee na ñu ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin nee na fii tey kenn gënu koo am la am Cheikh Mbaye Ndiaye Samb moo ko indi fii ci jëf Kébémer bi dafa xam kan mooy Cheikh dafa xam kan mooy Cheikh Mame Djimbira Cheikh Mame Mor la ma boole loon Cheikh Mame Mor Djimbira dafa boole loon muy ñëw fii ci Kébémer muy ñëw fii ci Kébémer ci kër gi ñu nekk ci kër gi ñu nekk bu ma daan tëgg nee na bu ma daan tëgg ba xaaju guddi bu tëddee ba xaaju guddi mooy jóg teg seen fii ci buntu kër gi nee na day jóg jël jël yeewu teg seen fii ci buntu kër gi di déglu Cheikh Mame Mor di déglu Cheikh Mame Mor daanaka fi war a am fi ñaari fan. daanaka fi war a am ñaari fan. am ci weeru yàlla. ndax cofeel bu ma amoon ci Cheikh Mamour Jimbi rek. ak Cheikh Mouhamadou Jimbi la bàyyam. ndax Cheikh Mamour yi lu mu am. Cheikh Mamour Jimbi la moo ko def. Cheikh Mamour Jimbi la itam lépp la ci moom. Cheikh Mamour Jimbi la lépp ci nekk ci moom. Cheikh na Cheikh Sadou la. nee na mi ngi dellu di wax alhamdulilahi rabil alamin Cheikh Mamory bi Cheikh Gueye mi di doomam dafa ñaan Yalla dafa ñaan Yalla ay at ay at am doom bu Cheikh Mamory am doom bu Cheikh ku ñew rek nek jigéen ku ñew rek nek jigéen nek mu di doomu Cheikh Mat jimbira ñëw wóor dama bëgg ñaanal maam Cheikh mu ni ko dama bëgg nga ñaanal maam Cheikh fekk yaayam war na lool. mu ko kii di ñëw kii di ñëw de. mu ne ko kii di ñëw. Cheikh Mamour lay doon. Cheikh mu judd nekk Cheikh Mamour. Cheikh Cheikh Moussa Diop dafa koy wax tudd nañ la Cheikh Mamour te judd woo. bii daa indi si daa indi daa indi. Cheikh Moussa Diop ma ko wax. na. waaw. ah kon nag. kon nag. maa ngi koy sant. gi nag dama ciy jiital ndeyam. sant gi nag moo ko jàppale. yu mu mënagul dara amul dara mu ànd ak moom ngir yàlla bu gisul def dara dugg ci dara lu ko naqari mu ñël ko rek te yàlla tax mu ni ñaan na yàlla jëmm ji yàlla na dund lu ëpp téeméeri at yu teg yàlla na ko yàlla jox ay milliards ndax su ko amee moom rek la ciy bégal def nii. kon lii muy def nii. ko kenn defalu ko kenn. man maa bëgg njëkk man moom moo bëgg njëkk mu ñëw bëgg la mu ñëw bëgg la ko ak ku nekk. ak ku nekk. taxaw. yàlla yàlla ci taxaw. ak lu ko gënal. ak lu ko gënal. ak lu ko gënal. ak lu ko gënal. ak ñi ko gëm. ak ñi ko gëm. li ci mooy. nee gii. Mamadou Samb mu jóg. Mamadou Mamadou Samb mii. naa ko ni ko. wax na ko ni ko. yow yaay tey Cheikh Mbaye Ndiaye Samb ci man. yow yaay Cheikh Mbaye Ndiaye Samb ci moom. dafa am guddi gum daan taxawee. dafa am guddi gum daan taxawee. ma ne ko Cheikh bi. mu ne ko Cheikh bi. ñun jibira lañ am. ñun jibira la ñu am. ma bëgg yéen ñëpp. dafa bëgg yéen ñëpp. ngeen di ñëw ñu taxaw jibira. ngeen di ñëw ñu taxaw jibira taxawal guddi gi. bu jibira jeexee. bu jibira jeexee. bu ngeen bëgg a def ngeen def. bu ngeen bëgg a def ngeen def. ndax man su ma bëggee tey jibira. ndax moom bu bëggee tey jibira. seen baay bu tedd ba la. seen baay bu tedd ba la Cheikh Mbaye Ndiaye. moom moo ko indi fii su ko fi indee ba tey xolam bii jëndira rek moo ci nekk waaw bisu gàmm mu taxaw fii mu taxaw fii dina bég bég boo xam ne bii dina bég bég bég boo xam ne bii wala ma ko bégaat wala ma koo bégaat ak ñu dafa dellu si ak ñu dellu si ba mu ñëwaat taxaw fii ci gàmm bi di mag sama soxna di di di di magu di magu kaamu mii nga xam ne mooy jur bu jigéenu Cheikh Mamour ñu ngi lay sant wax di la gërëm. ndax lii lépp moom la. su ñuy amee rek. su ñuy amee rek. moom xam na ko. moom xam na ko. moom lépp moom la. mi ngi ànd ak rakam. mi ngi ànd ak rakam. mi ngi wax Ablaye Faye. xaritam la nee na sa xolam nga mi ngi ñaan yàlla ànd bi yàlla ko yàlla téye di barke Cheikh Mat Jimbe ak Cheikh la Cheikh Sarr nee na lii la amoon tamit bi duñ ciy wax di jégalu kàddu yi di ko rafetal bu baax rafet la li mu wax nii dafa mel def lu nee na li li li mu wax nii Cheikh As Diop li ma wooyee Mamadou nee na li mu wooyee Mamadou fii léegi ko ni Mamadou. ñun de bu gàmmu ci seen i jot. ñun de bu gàmmu ma koy ma jot. ñun ñaar ñii. ñun ñaar ñii. sama papa. Cheikh Sidi Bouye. daf ñuy yóbbu yónni ñuy yónni. ñu dem fekk kii. ñu dem fekk Cheikh Mbaye Ndiaye fan la ci kër kër kër kii. ne ko ni ko. gàmmu gi. gàmmu gi. woy yi yaay borom yaay borom. woy yi yaay borom. tant bi tant bi. yaa ko moom yaa ko moom. yaa fekke woon Cheikh Mbaye Djibril. yaa fekke woon Cheikh Mbaye Djibril. yaa fekke woon Cheikh Mamori. yaa fekke woon Cheikh Mamori. ya fi nekk tey loolu laa ko wax. la ko bi ñu ñëwee tey. waaw kay Cheikh Habib mi nga ndax aw ma sax solo waaye nag maa ngi ciy jéem. mais am nga solo. am na waaw waaw. Habib. ci biir am nga solo. waaw dëgg la. ndax euh, cëriñ. cëriñ dañ cee naam ci ñaari weer. waaw dañ cee naam ci ñaari weer. fii njëy la. fii njëy la. di kër Cheikh Matia. fii kër Cheikh Matia tey maam ñoo jëkk nekk imam fii. sunooy maam a jëkk nekk imam fii. nekk waaw nekk ko waalo. nekk ko waalo. nekk ay wàllu. nekk ay wàllu léegi daf ñàkk am fii kër Cheikh Matia. li ci def ñàkk am fii kër Cheikh Matia. sëriñ ci ñaari boor. sëriñ ci ñaari boor. loolu yàlla may kon yàlla may ma ko ñu sant ko yàlla moom mooy li ko xam ne nii. waaw foo ne sama loxo ma fóot loxo. waaw lay ati. ndax sama yaay daf ko yàlla. waaw sama baay daf ko jël. dañu yaakaar jàmm ju bëree bëri. Hmm. ci tànk bi lay jàpp. bi ñëwee hmm. xam ne liggéeyu euh, taarix spécial diine. Cheikh Jimbala ko la wax. daal hmm. ju góor mooy diine. te góor la rek dafa bokk ci li nga xam ne ci jàmm yàlla. ma ne Mamadou parce que bàyyi sa moom tànk la. xam nga ndax la Cheikh Sarr. day génnaat ne rakam Cheikh si biir xeet ne loo may bàyyi mu ne ko na nga teg sa tànk xam-xam yi fa la ko sa a te kon muy jàmm sa a gàmmoon tey boo fi toogee dégg dégg tegal sa tànk ba nga xamee ni fa na ko a bàyyi léegi ma ne ko a xam ne ñett yëpp li nga moom li nga bokk ak li ñu la boole xam nga il faut que sa maam moo ko la sàmm di sa bàyyi chef bi jaar digle du gisal ñun ci yoon nekk daa ma bu neexee yow la bu naqaree la bu naqaree incha allah tàngu bu naqaree waaw Cheikh Ahmed Fadal ñoom ñëpp ñu ne ci moom la ñu bëgg a jéggul. te moom Baye Baye Cheikh Mamour yi. moom la jaayante lool. nee na mi ngi ñaan yàlla. doomam yooyu. topp ci seen gannaaw mag ñii Cheikh Mamour yi. bu ëllëgee. ñu xam ñu xam ni seen baay. lii la bàyyi woon ak seen mag. ñu topp ci gannaaw. ndax kii. bàyyi ko tey ndey yàlla na yeex bu fi bàyyi ko woon tey xalaatatul dara lii rek la bëggoon jërëjëf lenn rek Habib waaw mu ngi bëgg a ëpp nag ma rek ndax du Cheikh Mamour te Mamour suñu bàyyi Cheikh Mamour daf ñu doon naan xam naa nga dégg baat ko bàyyi joo gis wala ci doon day sax Mamour gis ba lii la ci doom doonte day naan. allah ji nii na wax ñu dégg man lu ma wax ci Cheikh Mamory lu ma dégg la. lu ma dund la. gannaaw yàlla moom rek laa yaakaar moo ma dalal alxuraan moo ma def li ma mel. sama bàyyi mu tax mu ci jàng am ñeenti di jàng ci Tiwaawan. waaye Mamory sama nijaay mooy sama sëriñ. nee na maa gëm sama bàyyi Cheikh ma jimbi la. ba tey bu ma di woon danu lay lakk ma ne ko bàyyi may ma ma dugg ci àll bi taxani ma min may lakkee. ndax gëm Cheikh ma jëfe loolu mooy gëm loolu mooy gëm lii si aat yoo wax léegi maam moo di teg ci tànkam wax dëgg yàlla béy na waa mag mag mi nu doon jàngal def ni ñetti place yi ku ko teg na la wóor ni ngelawu àjjana romb nag fu wayjur di gërëme doomam wayjur gërëm na doomam tey ba dën na mu yëngu wayjur gërëm na doomam tey ba dën na mu yëngu borom kër di gërëme jabaram buur di gërëme euh, dagam nee na ñetti place yi boo ko fekkee ak waaw ñeent ak sëriñ di gërëme taalibeem dana wóor di ngelawal àjjana na kon nag dañu sant yàlla ngelawal àjjana upp nañu tey Cheikh Diop li nga wax ci Mamori man tey du wax mukk témoigné ci Mamori mais Mamori li naan feccum liir bu jeexee woy jur yaa jàpp ca wagg yow mii tey boo ko ñëwoon Mamour yi lii def ci biir taxawal dootu fi ñëw xam naa ko bu baax xam ko ci gëm ji mu gëm xam bëgg ji mu bëgg woy juram jëndewu la ko dara jëndewu ko dara waaye nag bu ndey amee bu doom amee bàyyi day am kër yaay Mamour yaayam ak ay nijaayam yii wax dëgg yàlla kenn mënu leen a fay bu leen neexoon ni Mame Mory li ngay def ci xaj na ci njaboot gi waaye yàlla mëne na ko ba nga xam ne li muy def ci njaboot gi noonu lay def ci kër Cheikh Modou Djibril noonu lay ngi lay sant di la ñaanal yàlla man jotaay yoo daan toog ak Cheikh Mame Mory li ci ëpp daan na ma fi fekk ak Cheikh Mahmoud Ndiaye garanti bi nga am ci Cheikh Mame Mory nit tarbiyé la ba dee amu ko man nag Cheikh Mame Mory su la koy wax dootu man la sawar ndax mooma korne mooma def li ma mel sidi buyee ñaanal ma aar ma def ma jarbaat ni ni jarbaat dëkk li muy mel la ma kon man sant sant sama nijaay yi kii def lu ma yëgul ba ci magam Cheikh Talib kii bu ma ñëwee taxaw ci wetam dama ko naan man sa bàyyi laa sama mag yaa may ci Cheikh ma ne leen kon ñu dem. ak Lamine bi fi nekkoon. damay wax waa kër Ndiaye Mbaye Ndiaye Samb yéen ñi Samb wax. bu la fi jógee da doon la seetlu ne fan yàlla ko ne ñu bu ngeen demee kër Mbaye Ndiaye ndax fi nekk woon kat ay doomam a koy yor ba ba ñuy bàyyi wala ñu dem nga xam ne ni bu ngeen bàyyi du ngeen dem ñu ngi leen di sant di leen gërëm. nit nag bu ñëwee fa nu ko lalaloon daan fa lalal baayam amee ngoon nu fa tudd ziyaare baayam ndax nit mel waa mu am ci Cheikh Mbay li mu am ci njibira waxe leen rek xam na ne yéen du du naax say xam na ni yaa ngi fi dund mu guddi guddi guddi Cheikh sax bu dina ñëw teewe incha allahu rek kon Mamour ñi ngi lay gërëm di la ñaanal yow xam nga ma xam li nu li ñuy waxante ak li ñuy déggante xam nga ma xam Cheikh Jibril la ñu yaakaar ñun yàlla bu yaakaar tas yaakaar bu mu ñu ngi sant ñëpp di sant Mbengue di jaay ah jërëjëf kon kon ma jox Cheikh Met Fadal rek jox yaay sant bi. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla. Cheikh Met Fadal nee na ngi sant yàlla. julli ci ngën bi def Seydina Mouhamad di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu maam Cheikh ci mbiram mii seen maam Cheikh ci mbiram di nuyu as jógee bu baax a baax a baax. ak i mbokkam yi di jaay maamoon yi ak xaritam yi ñoom ñëpp di nuyu Mamadou Samb di ko ñaanal yàlla bu baax di bàyyam yàggoon yàlla na egg foofu ko di nuyu Cheikh Mamadou ak yàlla yàlla dëgëral ko ndax li muy def ci kër gi yëpp tey bu amuloon ndigalu way juróom du ko fi def day tey jii di di neexee day jaar tey ci mbagg kon lépp ci lu muy def ci kër gi ndigalal aar ak yaayam ma leen nee na bu ci ànd woon dañu koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam lu mu mën ren yaa ngi mën di ko ëpp dee as googay nag mënu ma koo fay ndax teraanga li muy def ci kër Cheikh Mbaye Djibe ñëpp ci bokk yam waxul Cheikh Mame Mboye sama sëriñ waxul Cheikh Mame Mboye sama sëriñ waaye képp ko Cheikh Mbaye Djibe la jur jaboote na la te naa ngaa doon doon doon ñëw ba ci yow. loolu ci mbaaxam la yàgg na ci yow. ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla bu ko ndax bi muy bëgg Cheikh Mamour wax na ko léegi. fii la daan toog. bu Cheikh Mamour Zikar. bu demee bay bëgg a ñibbi rek. daal di toogaat. dana ciy waxtaan ak nee na da ciy waxtaan ak moom lu bari. ak fi mu jaar ak Cheikh Mamour yëpp kon nag loolu. moo moo moo moo ñëw répertorié wu ci doomam ci Cheikh Mamour. ndax mbaar bi mu def fii. ndax mbaar bi mu def fii. sama yaay doon na ko waxtaanee ba ci dem. doon na ko waxtaanee ak yaayam sax daal da ngay ba ci dem. waaye suuf sama yaay dem. yaayam ni ko. da ko sa turandoo de. di ko sa turandoo de. fii mu toogoon ci garab. fii mu toogoon. doon jaamu yàlla. doon jaamu yàlla. ci sàkket. ci sàkket. sama yaay da nga daan wax. yaayam moo ko daan wax. mbaar mori borom mbaar. maam mori. maam mori borom mbaar. borom mbaar. ba tey maam Mori Gueye ñëw na def ko mbaar kon yooyu du par hasard euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dafa ko def sàmm ko aar ko yëg ko ndax lii muy def di xale yàlla jox ko xel mi bu koy def te li mu yor mënoon na ko yemale ci boppam ak ci boppam waaye maanaam nee na lu mu am rek lu mu am rek kër Cheikh Jibril la gën a jekk loolu ci baaxam la di ñaanal waajuram bu baax ndax at mu nekk rek dana fi indi teraanga jox nu ay mbubb lépp ci barke Cheikh Mat Jibril ak barke Cheikh Mamour bu ñu doon wax tey li ñu fi def ci teranga bu bu ñu fi jógee moo ko jëlee yàlla xam na ko kon yàlla ñu nga xam li waroon fay yàlla na ko yàlla fay ndax ñoom mënuñoo fay yàlla rek la leen fay ak barke Cheikh la julli rek ak fekk Cheikh Mamour ñoom lañ koy bàyyee bu soobee yàlla da ngeen am yokkute ba xam ni yokk ngeen donc ci li ngeen yokkoon incha allah. Mamadou mii nag. loolu da nga koy wax. bu dee takk yeneen bi. bu dee takk yeneen bi. wala way ci taal. wala way ci taal. mën nañ ko. waaye kóllëre. waaye kóllëre. yàlla da koy laaj. yàlla da koy laaj. ndax dañoo bëgg toujours. la Cheikh Mbaye Ndiaye Samb. la Cheikh Mbaye Ndiaye. daan ànd ak sama baay. daan ànd ak baayam Cheikh Mamour yi. waaw bu bu bu Cheikh Mamour yi waaye ba ku dikk xaaj. ñu jox Cheikh Mbaye Ndiaye. mu continué loolu la bëgg. loolu la bëgg mu fii mu fii sax. ndax loolu dana lu neex. loolu suñuy jiital la. suñuy jiital la. tey jàng yi rek. dundal dundal sa bàyyam nekk. tey jàng yi ba bët. tey jàng yi ba bët. bët ciy bëgg. bët ciy bëgg bu yàlla xam na ko. ndax bi doon ahda kaalul maxtuura. Mamadou loolu dégg na. sàpp yi. macha allah at mu nekk da koy def. waaye xam naa ne yenn saa yi day dem fële. waaw ñu ñu xawkootee. waaye bu Mamadou teewee. waaw. incha allah. nee na loolu la ñu bëgg mu sax kon jeex jeex wallaay wallaay wallaay wallaay mi ngi nuyu ñëpp di nuyu soxna Fatou Maguette Mbaye Maguette Mbaye. Maguette Mbaye waaw. bu bu bu bu sëtu Maxaali Mbaye. waaw loolu li muy def ci njëriñ rek nekkul kenn ak ak ak ak waaw sama yu bañ maa ngi. waaw soxna Fatou Faye ñu ngi suma ko woon ñu ngi lay nuyu di la jaar. soxna Fatou Faye ñu ngi lay nuyu di la jaar. borom borom seedeel na ko loo xam ni mooy li ma doon wax. ak sa borom kër bu la gërëmee ñaanal la yàlla ak ëllëg yow man xiyam juróom-ñetti bunt àjjana yàlla danaan ko tànnal su la neex yàlla nga ci daw incha allahu incha allahu li li ñu wax léegi rek ku ku borom kër gi dem gërëmi soxlaam xeet àjjana jaar na kon kon kon man jaakaar nañu de jaakaar nañu jeexal na toogal dama lay wax lenn baatil bu ndaw ci naar yi Cheikh Mamour def fii gis nga Cheikh Diop fii ñu def jàkka yi ci la Cheikh Mamour yi mbaaroon bi ko naan guddee ba jëm ci la la teg takk bu mu takk yeneen yi fii ñu def mbaar bi tey ci la daal jaabante inspiration bi di ñëw muy wax diggante xam bi ak garab gi ak mbaar bi mooy li tànk ëmb tey kon tànk bi du bàyyi bàttil billahi wallahi taala gis nga bi ma ko gisee jëm bi ma ñëwee dama ni ñii xamuñu lu ñu def sax ndax lépp lu Mame Mor daan wër fii tey mandargal nañ ko ak mbaax kon nag wallahi mara gën a mara gën a gën a yaatu gën a gën a gën a rafet waaw waaw waaw mbaar mi mbaar mi fii la Cheikh Sidi Xeer ñetti weer. fii la ñetti du xel daal def ñetti weer. fii la jógee awdu. fii la jógee awdu. di xool kan moo ko war a mën a génneel xaal. di xool kan moo ko gën a mën a génneel xaal bi muy àndal. mooy mbaax mi garab bi nag. garab bii garab bii. le cheikh. le cheikh. marabu rabu. marabu rabu. dëppoon dëppoon. nekkoon taalibu Cheikh Ndimbal. nekkoon taalibu Cheikh Ndimbal. doomu Cheikh Mbaye Djibé maar moom maar moom képp koo xam ne bokk nga Djibé képp koo xam ne bokk nga Djibé ëllëg booy wuy sa borom booy wuy sa borom ñu ngi lay teg ci wetam ñu ngi lay teg ci wetam lii la Cheikh Saad bu wàccoon kon Cheikh Saad bi wàcc bi mbaar mi mooy li ci biir a bokk bu kenn mënu koo doon maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu di bàcc maaw allah xayra bi di jégalu bu baax ci kàddu yi ñuy jëm ñu ngi koy jëm ci suñu turu kilifa suñu waajur di Serigne Mor Mbaye yàlla dafa dogal ci jotaay bu la nekkoon rek waaye dafa jóg xam ko ci kàddu kàddu gi nag ñun ñuy sant yàlla bu baax ci ñëw bi ñu ñëw tey ci pàcc bu sell bi ci pàcc góor yàlla bi di jàmbaar bi di jàmbaaru ñu ngi ci sant yàlla bu baax ñun nag suñuy kaddu ginnaaw bu ñu sant yàlla ci lu cent bi sant njabootu waxtu ko xam ci bëri lépp ñu ngi sant seen as yoo bëri mi xam naa ci cent kaddu cent yi ñu ngi jeew leen ci seen Mamour waaye ñun moom la ñu sant Mamour suñu jàppal waaye bu ñu ko sax sax day ñaan yàlla cat bi yëpp jëm jëm moo ko maa ngi koy wax léegi ca kër gi di wax ne ko ki tax nga doon doon doon boo ko fàttee doo ko doon doon te moom moo ko ci boole moo ci boole waa Jolof bi moo ñu ci boole yàlla dafa dogal ñun ci waa Jokalante ak Bambala bu ñu ñëwee tey tey acte bi ginnaaw yàlla. ak jëmmi Seydina Mouhamed di tax ñuy woote guddi gi jëmmam bii la ak jëmmi Cheikh Mamour waaye suñu capital ak suñu ñaan dañ koy tënk di ko boole ñun kan wi bokk ak soxna Fatou Seye ñu ko ñaanal yàlla def ak yóbbu ku yàlla dimbali la ci garañ ñoom yàlla fay na ko ci njabootam xam nga ne Cheikh ko maanaam yow seen moom la la yàlla tawee ak njaboot ndax góor yàlla bu neenal kenn ak liggéeyam ne la sa liggéey boo ko doon liggéeyal tey ak seen man jëmb la di maam dowul maam Maodo tey lii di doom sa liggéey la toog loolu moom ëpp yan sànq lañ koy wax ñun mbir yi duñ ci dara suñu waay waay ñu ngi ciy lépp maanaam tey bu ko delloo ci liggéey seen sa yaay toog seen maam moo liggéey nii liggéey ak yow kon ñu mën am lu ñu mën a dégg lu ñu a wax nañ ko delloo ci wàllu ñun nag bu suñu liggéey di feeñ fekk ñu ko def suñuy doom yi seen waay yi wax def ñoom ñii kon kon ñun loolu la ñu amoon di wax waaye ci mbokk yaakaar naa kenn desul tey am na soxna bi ñëw fekk suñu jarbaat fekk suñu waajur yi ndax ah soo ko nii ñu nekk ne waajur yi Cheikh Mate mooy moom la nekk suñu waajur li ko soxla mooy moom mbéy mi nga xam ne moom moom ay tamit genn wàll kon tey suñu waajur nga suñu kilifa nga suñu lépp la kon ñu lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa fan yàlla na dem ba ngay weer nga weer yàgg na jëf yi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jégg di tuubal yàlla bu baax ci ci dëgg jëm ci lañu leen wax ni ndax ndax Syekh Sidatullah Al-Aini dapat dimatiin oleh Syekh Sidi dia kini dina leko sebelumnya sebentar ini semakai mereka mendem-teman-teman dan mereka Wahai tak kamu teman dari naik menuju lima makanan dua puluh waaye xel bi yëpp nag dafa doon taw waaye terewul ndeysaan saa si di mas damaa woo ca bëccëg jox ma ceeb ceeb doy waar ceeb bi foog naa ne am na ñetti fan ma di ko barkeel noppal xam nga ci taalibe rek mu ne ma dem rek waaye bu ñu ubbee ceeb ceeb ah xam naa ne yaakaar waaye ba dem rek mbiri taalibe mu jël kayit gi ndaw dugg jox jox mais avant ay pare sama ma dama dimbali borom am ndax borom borom

te mat naa dal daal ko jóg mat saw kër waay tabaarakallaah dama leen ñëw lu la ci jox te ci ngir yàlla ak laaj bi xam ne nag ñoom ñoom seen alam la ah dafa tolloo ñaar du nangoo sonal borom nguur gëm a dem soo say di collectivité Mbandey dañoo ñëw indi seen kees demal waxal ñaata nga soxla ci alal da nga gën a gaaw doon fi jigéen mën naa doon bëgg a dugg xaar ñun lépp rek laa doon yabal ak dara moo tax moo tax moo tax sama doom laa yabal yow ci dëkk bi moom sax yàlla baax na ñu doon gën a lewee rek ñëw ñëw ne ma nag xam nañ ni la nga mënoon nag mën a doon rek sama doom boo yéen léegi nag ah seetal ñoo ñu def rek waaw bu may yegg li ñu di xajal waaye moom bànkeelu ñaari force rek ñu ne kontaan nañu ah yabal naa sama doom alhamdulilah loolu lépp barke kër gi la tabaarakallah bu ma nga faw bu ngeen ma yëwee ma def rek ngeen ma yëwee yëg moom mu góorgóorlu foofu rek di wax ko si biir biir bi kii rek kon ma baax बजारे बजार la la la la

maa ngi dégg loolu muy doon cérémonie officielle ndax ndax mbaar mii nga mbaar mbaaraan sa sëriñ di sunu sëriñ di sunu yaakaar ah yàlla da lay mbaaral ba yombal xiyaama ndax def nga ñaari action yii ne ci sa baay amoon ci njëmbal ñun xam nañ ko ah góorgóorlu góorgóorlu ko ci loomal waaye liggéeyam yeeg Cheikh Mat Jimbira te nag. ضد kau dia لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ñoom duñu raw duñu raw ñu mënoon bi ñuy melaw bi ñuy dund tey nag ko gën a mën teew xam sama bàyyi nekk tëral bu man toogaay toogaay bu man taxawaay gëm ko mu gëmoon Cheikh Sane doo sama ci la ci lay def loo xam ni naaw karena def sax li muy dox kon nag tabarakallahu dana ci dolli ne kon ngir baax leen ko naan pour mooy Cheikh Abdul Djimbira ku bokkaloon jamono bàyyi nga ko xel bi muy wajib àdduna martaba bi daan doxe kenn doxe ko woon ku ne baax na ci taalibe bu nekk ko am wai way wa wai way way wa ko way أوصيك يا مريدي بتقوى الله فإنك أنت من الأسرار فأنت asrari. وصمش معك wasam الولي wa شيخ المشايخ ya syekh wax ne taxawaay wakil takawai di syekh ibrah Cheikhul kur syekhul khadim. Mabla pakai uji. mat ko sëkk fa tabaarakallahu ya Allah bayakut, denen may bu doy war bo xam bo boo jàngee ñaan gi mu jë mu jang ci ya rabana istahlana bandal boko jàngee ba mu jeex di nga xam ah ñi defal rew mi bari na de waye ñaan bobu bokku na ci ñaan gi defar réewu Sénégal yaarabanaa istaxnanaa baldaana war na xulóoba ëynihaa imaan ah wa ah وطاهر حتى بزكاة بجاه من بنوره نور بلا ومحمد صاحب الجلال والكرم صل عليه عدد الاشياء وكان في الارض والسماء kooku ñaan foog naa ni ah moo defar réew mi ndax waxuma sax moom li mu def ak li mu wër waaye bilaat yëpp la wax tax na naa bal daana bàyyiwul sax Afrique bàyyiwul monde entier ñu ngi ñaan ñaan boobu yàlla yàlla yàlla tas ko sunu kaw ba yombal te yàlla bi di nga teg sa tànk rek ak bokk say mbokk bokk say wéyjur waaye bokk sa sëriñ nag te yemale woo ko kenn lii mooy yoon wi sunu wéyjur ak yi toog aji màgget seen ah ñu di ko ñaanal gis nga daf ñu daan tàggu ci xew-xew yi bu ko sàkku teree ba tere ah màggalu tuubaa gi nag ren nga rëccu ndax xam naa ni Serigne Touba moo bëggoon mu ñëw ndax fu ma teg sama tànk ci sang yi rek ñu dema ana sa yaay ma woo ko nag nekk maa ngi jégalu xam na mer na nag dama di ngeen ma fi bàyyee nii waaye fu ma teg sama tànk ak fu ma ànd ak ci Touba rek sang ma fa nekk dema ana mer bi loolu si nag waaw xam ni sang bi bëggoon mu ñëw waaye Kébémer bi tàgguwul bi mu desee une semaine lepas nak ñëw ki demee harus harus xaaru xaaru ñu naan ko toog kon di ñaanal soxna Bande di suñu soxna ah jëndoon na biye ba war a dem moom doomam yëpp tabaarakallaahu ah danu fay biye yi waaye mu reporté di wax ni ak yung ko sidan edit mo rin pilot na by naman anda merbi anda din kay merbi wala ito yung mga rin anda kalina kasi na babi kaya sa din na gana ko ko niya pwede just Mamuri yang nama Syekh Syekh tahu sehingga di ya Allah mesti itu dah lu du dellu ginnaaw ñii li ñuy wax lu leer lañ ko ko sama bàyyi cheikh na wax ci gënu ma sama jàng sama jàng waaye tey lu baas rëy rëy rëy wax naa ma duy sànku ci waawa dañu ñu dar ñu dar bu métti ñu génn ba dugg ci oto bi ma ne ah, ñu mel ne xam nga du ñu waaw ñun dañuy rek ci bi mais lii ñu lii ñu topp lii du ñun de waaw ñun mënuñu mënuñu ko xamuñu luñ koy defee ah déedéet du ñun la ko yëmbale ko doon jërëjëf jëfëral ah waaw wallaay wallaay dëgg la kon ne yàlla loolu sax barki démb bi Cheikh Issa Cheikh Makhtar Thiaw bàyyam lañ tuddee maire Mbour maire Mbour ba la tey waaw du muy génte ñoom Doudou Mbaye ak kilifa yëpp fa nekkoon ah ku ci nekk Cheikh Sidat Thioune dégg nga ak kilifa yi ba ñëwoon shérif yi ku ci jël rek wax ci sunu yaay kàddu yu dégg day loolu moo nekk ci Adja Fatou Faye ndax Fatou Faye moom sama xarit la te léeg-léeg nu waxtaan lu lu bëree bëri te jigéen ngay dal macha allah ngay dal tabaarakallaahu ah, am jot fulla macha allah ah te jóogay wax na ko fii sànq te sañ te wax lu ko lool tamit kon nag ah lu lu ñu mënti wax ci àdduna rek yàlla na doom yi màgg te barkeel yi yow ak say rak euh, sa liggéey yaay bi yàlla na ko yàlla gën a ful rek la ñuy wax ci cat dugg yàlla bu leen yàlla na ko yàlla mott li incha allah dafa yéene waxuma nim zaat waxuma fii jimb rek mais na dem nim zaat ba màgg ba Madina yàlla mën na ko bu dara ci yàlla sama papa ne na ma juróomi magasin yi ren rek la ci yàlla jël lu tolli catu puso xaati ba tey jàpp te àdduna sosoo ba léegi gars yi da koo diggante waaw lu tolli catu puso. kon benn bi jeexagul bay ci des ah kon yàlla li mu yor du jeex ah ah allahu latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaa'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz kon yàlla na gaaw ci lépp allahumma salli ala sayyidina Muhammad dana di teg ah mu ngi tàllal loxo yi Cheikh Abdou Thiam Niang bi borom rajo dañu koy gërëm di ko sant eh, comprendre nañ mbiru mbiru matériel waaye courant waa ndeysaan waaye yéen a ji ëppoon na lii yal na yàlla jox la balaa koy matériel yi ëpp doole uniforme bari bépp aaju bu am ko di ko fi yàlla na ko yàlla fajal maam Noori ak njabootam ak ay kilifaam ak booy juróom yëpp yàlla na yàlla def ci ñoom lu ëpp seen jot ci yow ci barke Cheikh Ahmad Dibira sama kër di jaay Cheikh Mbaye Ndiaye ñu ngi leen di ñaanal comme man sama góor ga école yàlla ngeen ko weesu di ñaanal ñi fi teew ñëpp ci barke Seydina Mouhamad barke bu ñu nii yàlla na yàlla defal lépp ñu dajawaat fi déwén kenn ku nekk yokk bu yëpp incha allah amiin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 كوكب بوضوء من حجم شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يسمعون على نور يهدي الله نور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا في الأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي له ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الجم وسلام الملك وسلام الخيول وسلام السترة دائما أبدا دائما أبدا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين